jërë ngeen jëf suñu bokk internet yi ñu topp ci Soxla Wu la Thiès Prestige waaye jërë ngeen jëf suñu bokk téléspectateurs yi mi ngi noonu ñu ngi leen di safoo saa su nekk seen télévision régionale mbokk yi amaan nañ mbégte ak contentement ñi nga xam ne ñu ngi ci caabi di leen a féete ginnaaw natt boobu yàlla na ko suñu borom teg góom set waaye duñ fàtte suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tëdd ci lal hôpitaux yi ak ñu tëdd seen lali kër ñi yàlla na yàlla saafara ci ndox ma ni naan mbokk ñu ngi ñaan ci réew mi jàmm ci noonu nag xam nga ne ay bés la ñu génn am na ndaanaan doon fi dajaloon muy Serigne Bass Bamba xeewal mu woonoon fi ay kémtaan yu doy waar ci noonu nag tey dañoo dalal keneen ci doomi réew mi ci fajum cosaan muy Serigne Mouhamed Diop ñu war a seq mu waxtaan Serigne Mouhamed ñu ngi la bàyyi nga nuyoo. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. baad awuzu billahi min asseytaani rajim. alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala wa sallam. wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi salallahu alayhi wala xawla wala quwata illa billahi al aliyul ñu ngi lay fay nuyoo du nuyu mbooleem fu nit mën a nekk ci àdduna bi te yu ñuy seetaan di ñaan yàlla lépp luñ fi nar a waxtaanee yàlla na nekk njëriñ ñeel umma bi bi himmati mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. jërëjëf sëñ Mouhamed ci nuyoo bu am solo bi waaye danga mooy xaw a yor nduru leeru ñaseen yooyu daal danga bokk ci kuréel googu xanaa. waaw sëñ Mouhamed Diop ndonga daara la taalibe la mhm. jullit la ñaankatu yàlla la. Mhm. Euh, loolu ñu mën a wax sëñ Mouhamed Diop moom mooy kan. waaw arab danay wax ne nit ku am mbañ bus do tok di tag sa bop mhm. waaye ñako wara wah a wax ko wax waaye ci gatal mhm. la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ben hadis yar len sen dom yi jek ñi judd kenn ci sahaba yu juk nako ya rasulullah nan la yare sin dom yi te juddogul mhm. mu ngi nan nang len utal nday ju bax ginnaw nday ju bax bu ñu nang len utal turu rafet tak nang len jangalo tere yalla bi te nang leen bëggaloo waa kër ahlul bayti ñi mhm. nag ginnaaw buñ juddoo ci ay ñaari waajur yoo xam ne kenn xamu leen lu dul ci jàng ak jàngale ak jaamu yàlla mhm. ginnaaw buñ juddoo ñu utal ñu tur bu sell ñi ci gërëm suñu waajur yi ginnaaw lool ñu teg ñi ñu jàng alxuraan mokkal ko ba ñu doon tut tànk ginnaaw gi nag doyloowun lu bàyyi am ak lu maam yi am waaye dañoo laxasu suñ tey bopp dem jàngi te xam ne xam-xam jàng rek moo ko mën a maye waaye du ndona nit mën a ndona mooy ay yére yu fi sa baay bàyyi wala ay kër wala ay yeneen waaye ci cadre xam-xam man dama gëm na jàng rek ko mën a maye ginnaaw bi nag doyloo ma lu ak maam yi mm. waaye damaa génn ci sama yittey bopp laxas dem jàngi ci gàttal daal loolu mooy sama jaar-jaar mm, ginnaaw jàng ba nag mu mel ni kon léegi danga am mokkal ba ñëw tari nga dugg nag ci wàllum pajum cosaan euh, pour ñu door waxtaan bi nag pajum cosaan dafa bëri ay pàcc ñu ngi gis ñoo xam dañuy dañuy fas ah ñi yor canard ah ñi yor ay reen ñi yor sunguf am tamit ño xam dañ yor cruise ci walu lasrar yow ci wan domaine nga nek ci walu woowu xam nga fajam tosan buñ ko waxee hmm. dafa ëmb lu bari hmm. waye ñun lu ñu suñ mbir moy sunna ak sharia moy alquran alquran moy suñ base moy suñ lepp di téré bi nga xamné yalla moko moo ko na ci safara ñeel ñi nga xamné moy ñu gëm ginnaaw alxuraan tamit gëstu neen ci wàllu plante yi mooy wàlli xob ak sunguf ak ren mhm. ginnaaw loolu tamit gëstu neen ci wàllu ceddu gi ci suñu cosaani maam am na ci ay ceddu lañ ci wàlli lajoor mhm. ginnaaw ceddo gi nag lislaam moo ñëw defar yépp rafetal ko ba nga xam ne euh, am na luñ jël ci ceddo gi am na lu jël ci sunna ak ci sariya mhm. ci ñaar yu yépp lañu boole ci xeetu ren ak ci xeetu alxuraan ak ci sunguf ak ci ay carnal timit amna yuñ ci liggéey ci ay wali fas ci xeetu xam-xam yoy yeb dal té lumay wax moy xam-xam xam lepp mo gën umpalé lén yi ci lool dal moy suñu ah serigne mohammed yow ni nga ko ganna sa doyna na waar yow yow daanaka da nga décentraliser ya ngi ci sunguf ya ngi ci reen ya ngi ci lasral non nga suma déggé déggee say kàddu waaw lasraal mhm. dama ko jang wo xamné dafa jégi doyo mhm. mooy lépp lu ci nit indil boko bindon tay lu ci dam man naa corriger te lépp lu ma ci bëgg a def ci fal nit wala lépp lu ma ci bëgg def ci nit mën naa koo def ci yoonu nasaraan am na yoo xam ne nag boo ñëwee moom ci yenn cedd yoonu ceddo gi la ñu jaar ak yow mooy wàllu sunguf ak wàllu ren ak wàllu. bala ñu ci wàllu sunguf ak boobu maal wàllu pal gi nga wax euh, ci wàllu nasaraan yow mën ngaa dogg ci nit. par exemple kuy xëccoo maire wala kuy xëccoo benn place nga ne yow mën nga ko defal rasaar mu am ko ci saa. mën ko koo def ci yooni musalazul xazaali. musalazul mhm. xazaali am na ci benn yoon boo xam ne ful fal nit la. nit koo xam ne dafay xëccoo ci lépp loo xam ne daf koy mën di xëccoo si ko ay mbooloo. Mhm. am na loo xam ne ci musalas xala xasaale ci lañ koy def ñu la ko defalee ak kooku man di xëccoo la ngay xëccoo moom yow yaa koy jël. te ci yoon wu leer la ci musalasul xasaali. Pape Doumbia ñi nga xam ne ñoo jàng asra. Pape Doumbia dafa soxla maire zone nord. bis bu ñëwee ñu jëflante ci loolu bu soobee yàlla dana dégg maire. waa léegi bu fekkee ñaari nit yu ñëw ci yow ñoom yaa ñëpp bëgg maire boobaa nooy def. déedéet xam nga ñaan moom booy ñaan ka nga xam ne moo jiitu ci yow di ut la mu ut bu ñëwee ko ngay defal keneen ko bu ñëwee yow da ngay sëriñ bi yaay am matagore parce que nit euh, yàlla comme li yàlla wax ci alxuraan boo wut ñaari xel ci benn nit ah sëriñ si kat dañ fee nekk moom ma ñëw génn keneen ñëw dugg te dañuy bokk benn soxla nga ne dina dina sotti waaw sëriñ si nga wax mhm. waaye ñëpp jàng neen waaye ñëpp bokkul mhm. ñëpp jàng neen waaye ñëpp bokkul kenn ku nekk dafa am looy gëm am keneen ku loolu looy gëm mm-hmm. ñun jàng xam ko ci sunna ak ci sariya mm-hmm. am na loo xam ne bu ñu ko xasee ba defal nit mm-hmm. keneen bu ñëwee tamit lañ defal nit ko loolu la ñuy continuer te doy loo loolu parce que mënoo bokk ci ñaari nit di xëccoo benn mbir ci benn gox nga ne da nga bëgg a samp ñaar yëpp loolu boo xoolee ci yooni sari ci yooni lasraar rek loolu daanaka xel nangu ko xel nangu ko mais ci wàllu lasraar jaas par exemple nit ki ñëw wax la am nga tëjul ko loolu dina jaas wala day am day am day am force wala du am loolu noonu ndax fan la. waaw xam nga nit bu ñëwee wax la soxlam mhm. njëkk ngay tëju. Mhm. da war a xam kii lan moo gàllankoor ay mbiram. Mhm. parce que doomu aadama bu nekk mënoo ñaan ci mbiram te xamoo lan mooy gàllankooram. parce que koo gis dafa am biddiw bu mu taxawee. te biddiw bi mën na naayis wala sakle yi mën na am ci nu mu taxawee. balaa ngay njëkk di songu nit. ci ay mbiram da ngay xool lan mooy ay gàllankooram bu laajee ay sarax ak leneen loo xam ne loolu la war a def lépp ngay dugg ci tëju nga fexe yooyu mu génn ba nga xam ne yow boo duggee rek li nga bëgg da nga koy am facile parce que xam nga tabax mënoo koo def te defoo fondement boo ñëwee teglante birig yi rek ci daanu la def nit tamit boo ñëwee da nga ko ñaanal pour mbiram yi jëm sa kanam nga mm-hmm. jóg tub rek duggee noonu rek ci ñaan mm-hmm. wala nga jël loo xam ne daf koy ubbi rek facilement jox ko ko te loo xam ne ci mbir ubbeeku lay jël nga jox ko ko te mm-hmm. xooloo dëgg-dëgg mbiram lan mooy gàllankooram parce que nit lu bëri man na koo gàllankoor mu doomu aadama euh, làmmiñ ak bët mën leen koo jàpp ba nga jàpp ne dañ koo liggéey rab dana koy def. Mhm. danañ ci dugg ci biir eh, ci biir détail yi. Mhm. yooyu yëpp daal njëkk daal dañ koy gëstoo ba pare bu ñu ko mhm. gëstoo ba pare tamit la ciy sarax ñu def ko pare buñ ci duggee yow ñaan ceeg yow rek liñ bëgg la yàlla maye woon bu ko dindiwut te xam ne lu ñu yàlla may da ko am facile daal incha allah. waaw loolu xel nangu na ko waaye tamit li nga li nga xam man ànduma ci te du ma ko d' accord ba mu ko mooy man par exemple nit koo xam ne yoon àttan na ko ba tëj ko maanaam li mu kasoon yaakaar naa loolu lasaraal moom ci dara a génn. lasaraal amut lu mu mënut lu mënu ci àdduna ka koy jàng mooy xool lu mu ciy def pour ragal yàlla wala mooy xool lu mu ciy def pour ñaan pour pour am lu mu ci mënut waaye nasaraan amul lu mu mënut. Hmm? nit ku dugg ci kosa nasaraan mën na koo génne. ah déet ça dépend la def na xanaa. nit ku dugg ci kosa nasaraan mën na koo génne nit ku nekk ci yoone tribunal nasaraan mën na dëpp mën na dëpp mën na dëpp mën na dëpp papier yi ba nga xam ne siis bi doon teg teg ci bëtam ci papier yi. waaw su boobaa du ko indi gën a indil guuta siis bu gisul papier kay ci guuta nga jëm. papier yi ngay dëpp dootuñ ko ooti xam ku gisu sa papier ku lay oo bu ne fekkee mu ne ci biir na bu nekkee ci biir ba nga ko mën a génne am na loo xam ne boo ko defee ci ñam bu ko lekkee du ko demee dus fukk ci kaso gi nasaraan amul lu mu mën sëñ Mouhamed Diop mën na loolu mën naa ko su ma la ko joxee nga lekk ko demee dus ci kaso gi mu ah bon wallaay ah man damay bañ nag ñu def waxtaan bi comme ça xam man ku ne dalal naa la fi xam nga sëriñ si moom man am na ñu leer ni carrément dañuy wax nii rek pour neexal plateau waaye li ñuy wax gëm naa ne mënuñu ko mais nit ku nek ci kasso moom seigne Mouhamed Diop loolu bëgg naa taxaw ci touti de. passé naa fu may waxee pour neexal sama hmm ku jàpp ne nit ñi ngay nax sa bopp ngay nax parce que lima jang dama ko xam. Mhm. waaw ku bëgg tukki. ku bëgg tukki ci ban façon domaine tukki dafa bari ah par exemple mu bëgg visa dem ci ambassade mun ñu ma may. lo xam ci tàndarma lañ koy liggéey. jox jox ñu sa passeport ñu fanaanoo ko suñ paree jox la tàndarma bi nga dem saraxe ko am nañ def ci liggéey ci leket nga sangoo ko toj toj leket bi foo dépose dana la may visa léegi yow sa liggéey amul test maanaam xool ko mel ne Seck Ndaan nga léegi yow li ñu ñu Sénégal di xool pourquoi mënoo ko tese ci man ndax maa laa yëri bukk illaa maa laa yëri bukk mhm. yonent bi nee na lépp lu am sikk na ko bàyyi yàlla kenn du ko jaamu ci sikk booy dem ci sëriñ da ngay ànd ak kóolute gëm rek waaw gëm mhm. sikk day yàq jëf ah sëñ Mouhamed Diop yow de engagement bi nga fi jël man mosuma gis ku koy jël li ma jàng loolu ci xam-xam nga ko teg wala ci lan. ci xam-xam ak jàng. Mhm. parce que wax naa la ci début bi sama baay dama ko fekk mi ñaankatam yàlla. Mhm. di jàngkat di jàngale alxuraan. Mhm. lu ma am parce que baay la am moom moo ko liggéey. man su ma bëggee dara damay dem jàngi pour am man gis naa genn kilifa goo xam jamono jii may wax yow mi ngi xëccoo ay marché. gis naa tamit kilifa goo xam ay conteneur am ngi ci port bi lu mat ñaari conteneur am ay lëj yoo xam ne fa ne dugg na fa ndax loolu moom yow mën nga ca dara am. bu ñëwee ñu jëflante ci. ma xool mbir mi bu ci jëflante li mu bëgg dana ko am. ma xool mbir mi qu'est-ce que ça veut dire. mbir mu nekk man balaa ma ci dugg dama koy xool. parce que médecin boo ñëwee ci moom rek na ko damaa sama bopp day métti. wala sama biir day métti. du jël garab bi faj bopp bi métti rek jox la ko. dana la consulter ba xam ban médicament moo baax ci yow. d'accord nit nag bu ñëwee naa sama bagage dafa nekk fii da nga xool ba xam lan moo téye bagage bi. ndax ay ndëgg sarax la wala ay win lal la. boo xoolee ba pare. am na lépp loo gis dafa am yoon. Mm-hmm. fekkee sarax rek mooy yoonam nga génne loo ko sarax. Mm-hmm. fekkee dafa laaj sarax ak lu muy def ci yaram mu def ko. Mm-hmm. te buñ ko xoolee rek luñ ci gis buñ la ko defalee li nga bëgg da ko ndax na leen dikkal léeg-léeg ngeen ngeen def ngeen ngeen ngeen def situation boo xam ne comme ça nit day ànd ak njaaxle ñëw ngeen fexe ba mu gën ci di situation ndax yenn saa yi amul luñ ciy dikkal loo xam ne day def gàllankoor seen ci yéen. waaw xam nga sëriñ. xam nga yàlla dafa bind nit ñi. te ñu uutee am na nit ñi ci ñoo xam ne ay niti gàllankoor leen bu ñu tegee sa tànk sa kër yow sëriñ bi mhm. te yow amoo dara loo xam ci baatin mhm. yow ma leen ñu ñaanal boo amul sens yow yaay dëkk ci gàllankoor yi parce que seen rab mooy fay wante ak yow mhm. te boo mënul dara ci mbiri rab wala mënoo dara ci mbir gàllankoor lépp loo dindi ci moom jàppal na ci yow lay ñëwaat am na ñoo xam ne tamit dañoo gaaf. am ñoo xam na tamit seen biddiw moo ànd ak yenn yi. ba tax na tamit sëriñ heure bu xëyee moom njëkk mi gis nit am na yoo xam ne war na koo def ci boppam. ci boppam xam ne nit bu ànd ak ay rab ak loraange yooyu yëpp. balaa ñëw ci yow da ci mucc te tamit boo amee baatin dëgg. war ngaa xam ne kii may ñaanal rabam bi lan la soxla wala nangam ak nangam. soko defé rek li nga bëgg ci mom dang ko am ba galankor bi du ex ci yow. Mhm. ba lañu dugg ci deuxième étape bi rek xana walu walu rasrar gi ñu ibé mom ay mbiram dina xawa dina xawa doy war ndax da ngay fatu lolu ay bëss ngir mëna def situation mu ñong xana lolu nak ci walu wéxal gam dina xawa dina xawa ki tuti wa xam nga ñaan yalla mom mhm. dina wax na bu ci nit defoon ay milliards jamm na ko. Mhm. parce que nga xam ne dafa bayyi soxlam yépp tuddu yaayam tuddu bayam dila tuddu ci say soxla. comme loo ko fay jarul. nelawut def dara. jël kurusam toog lu war a mat cinq de temps. di tudd yàlla di jaamu yàlla ba mu paree yëkkati ay loxoom. ñaanalut njabootam ñaanalut yaayam. ñaanalut baayam di la ñaanal. comme loo def ci moom jarul. acco mi ngi noonu mbokk yi ñu fàttali leen rek yéen seen émission pajum cosaan tey nag ñu dalal suñu benn doomi réew mi muy sëñ Mouhamed Diop jóge fa jóge ba Dakar ngir ñëw am ay leeral yu mu seq ñun ci noonu nag dégg li wax ci wàllu lasraar lasraar nag mag ñu baax ñi ku ci mel ne Seydi Hadji Malick ak ñeneen ñi nga xam ñoom lañ bokkaloon réew mi daan nan ko def lool suñu mbokkum taalibe yu amoon jafe-jafe daan nan tëju ci nekk yor seen kurus di wér ba yàlla defal leen ko kon loolu nangoon nañu ko ci réew mi la bokk waaye ci waa wàllu pajum comme ni nga ko waxee sànq pajum ceddo yi nga xam dañ koo jëlee suñuy maam yi ñoom la jor yeen daan jëfandikoo ba tey yooyu des ci réew mi ndax yooyu tamit yaa ngi ak moom ba tey. ci laa bokk. Mhm. parce que ci ceddo googu sama wàllu nekk bàyyi ci ceddo gi leen. Jóob da nga sant moom. waaw Jóob la. boo ñu mhm. dàqee dañu dem Cilmaxa. Mhm. te Cilmaxa ku ko wax tamit ci réew mi. da xam lu waaye ginnaaw nag lislaam ba mu ñëwee dafa rafetal lu bëri mhm. terewul nag ceddo gi am na loo xam ne jël nañ ko ci yéen ko moom waaw mhm. ab yoo xam ne nag boo ci ñëwee mhm. ci ceddo gi lañ ci jaar ak deme demee ni ay wàlli xàmb yi ak wàlli njaq yi ak fas ak yeneen yi nga xam ne mënoon koo tudd waaye boo ci jëflante ñu ah déet dañ ko tudd kay man kay bi ma ciy njëkk a souligner sax mooy maanaam góor ñi nga xam ne jamono yi yëpp damay gis ñaari nit yoo ci waxal mu ne dan maa takk xala waaw dindi la waaye am na boo xam ne nag dafa jafee di dindi mooy bu ñu def ci mbott waaw boobu moom sëriñ bu ne la mën naa koo yóbba dindi moom dafay wax lu la waaye boobu bu ñu ko xasee ba def ba mu jàpp ci nit jafe na nit dindi ko kon tey su ma jëloon xalam mbott def defal ko bobet par exemple moom dootul jógalati ci këru àdduna lu jafee dindi la xam nga nit toujours xam-xam moom maandu da caa baax bu la caméra yi tiim nga ne lépp lu yomb la waaye boobu la jafe pour dindi la waaye yeneen xale yi nga xam ne moom ci taatu ndaa lañ koy def ak yeneen yi yow boo ñëwee moom daanaka lu ñuy njëkk jàngal ci caddu gi ñun mooy caddu lu ñu lay jëkk a jàngal mooy lu ñu xeexee mm-hmm. xeex mm-hmm. ak liy dindi gàllankoor mm-hmm. ak liy protéger nit kaaraange ci wàllu caddu ñun loolu la ñuy njëkk a jàngal nooy dindee xale ak nooy protéger nit ak nooy xeexee nit ba nga xam ne nit bu jëmee ci yow tamit du la mën mënal dara demet dugg ak yow ci wàll njaq yi njaq yi nga xam ne ci wërsëg lay dox mhm. njaq yi nga xam ne am na ci yeneen yoo xam ne fekkee da nga nekk ci barab nit ñu contrôle la nga bëgg faa yëkkatu ko ba nga xam ne borom kër ga ngay liggéey dana la jox bopp mhm. am na ci yoo xam ne ci yooyu lay dem am na ci yoo xam ne dafay toj liggéey lépp loo xam ne dafa nekk ci yow ci gàllankoor ak liggéey làmmiñ ak bët yi daf koy toj xam nga am na ci boo xam ne tamit ci wàlli rab lay doon te rab boo ko xoolee day phénomène boo xam ne dafa sonal nit ñi jamono ji lool. ñëpp ko am rawatina jigéen parce que da gis jigéen boo xam ne dana mel nu mu war a mel lool. kenn du ko te du mën a am jëkkër. Mhm. wala góor goo xam ne boo koy seeti boo demee ba jubbuntu kër gi fakkatal. Mhm. rab moo lay këttal ba nga fakkatal wala gis jigéen joo xam ne dana nekk ak góor faram wala mu nekk ak jëkkëram. Mhm. heure bu nekkee ñoom ñaar rek ci fitna la ñu nekk ci xuloo bu génnee kër gi mu oo ko na ko namu naa la nga gis góor goo xam ne nekk ak jabaram dugg ci salle de bain boppam ba yëg bànneex moo koy gënal mu jaxasoo ak jabaram ah, te loolu rab dana ko am mm-hmm. gis góor goo xam ne dugg ci toilette wala di masturbé ba yëg bànneex moo koy gënal mm-hmm. mu jaxasoo ak jigéen mm-hmm. nga gis koo xam ne tamit ay boo amee dara du taxaw ci sa loxo yi lépp loo yaakaar mu tas wala ngay toog sa awra di dellu wala ngay toog yeneen yooyu yëpp xeetu rab dana koy def wala ngay toog muy ëf sa bi wala ngay am problème yi yàq yépp ram da koy def wala jigéen joo ngoro yow hmm. mu dem mu da ngay jàpp ne da ngaa ñàkk xorom kenn nobu la te fekk na sa rab mooy ba nga xam ne jigéen boo nekkal rek rab bi dana firé ba jigéen boobu dafay am jalous ci yow ba nga xam ne dootu la mën a supporter ba fay bëgg yéen ñaar ngeen tàqalikoo moom mu dem nga dem jigéen tamit dana ko téye ba nga xam ne mën na nekk ak jëkkëram mhm. ñi seq ñoom ñaar ba nga xam ndox ndoxu maniw bi nga xam bu duggee ci biir war a sos doom mhm. bu demee ba toq rabbi man nako na koo soppaliku daf ko ndox bu duggé timi ndox lay doon du sos ndoxum na ni rek. ndox lay doon <laughs> man na dem ba jigen bi war lor ba am ay 1 mois et quelques rabbi ñew sey ak mom tur ombu bi yeb da lay am. Rabbona. na. rab tibit man na yow nga nek goor djub sa jabar dem ba wara sekk ak mom mu dóor sa ndig ba nga xam da ngay wacc doto doto meuna jugal ba sekk ak sa jabar da nga gis am da dana yeb bopam ni wa dem ba bu ba wara songu jabar ji mu del mu del du man dara. <laughs> bu jàppee na moom day jàpp ne kii na fekk na rab mooy def loolu. c'est rab dana tey góor ba du mën a du mën a jugal pour sangu jàng. mais sëñ Mouhamed loolu faj wóor na yow itam. de moom dañ koy faj dañ koy faj nga moom euh, mbir moo xam ne booy xeex ak moom. Mhm. da nga koy protéger ngir ëllëg parce que lii fayeeku la. Mhm. parce que bëri na ku koy faj boo fi jógee àdduna mu songu say njaboot. Mhm. loolu nag mooy ñàkk xam. nak mhm. xam parce que bokay fajj da nga projet sa bop projet sa ëlëk ngir sa njabot mhm. ñun nak am na ci cëw go xamne dañ koy liggé ci walu rap dañ la koy jox nga takk ko ak ciuray bo xamne dañ koy suro ak lo xamne dañ koy naan ak sango mhm. fekke walu rap rek mo la japp rap rek buñ la ko joxé kër goo kër ga nga kër yow boko takké kër ga nga yéwo sax bu far nekkon dana dégager ah da nga gis ko xamne dafa am kër tabax waxtu nek kër gi di tak waaw bari na fekk ne dafa ñëw dëkk ci kaw rab ba ci magasin yi sax ba ci magasin yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi daan wax ne mhm. ñaar bu leen ci dugg wala ñett bu leen ci dugg te xoola leen ko mhm. mooy jabar wala kër walla daaba daaba nag jamono boobu moo amoon mooy ay fas daaba gi nag comme ci xam-xam yu bees yi mën nga koo yéegal mhm. ba ci oto yooyu yëpp yooyu yëpp gaaf da ciy ànd te gaaf ba tey tamit dafay tonk ci keetu rab mais sëñ Mouhamed rab nan lay toppee nit man ñun bu ñu déggee rab dañuy yaakaar ne rab ci sa cosaan lay bokk maanaam ci sa ci say maam lay jóge ñëw ci yow waaye jamono ji daan mel ne xale yu jigéen seen col ko gu bon geeg ngelaw lii daw est ce que loolu bokkul ci liy indi rab wala rab du ñëwee noonu. waaw rab danay am rabi cosaan. Mhm. comme ci xamb. am na caddu yu njëkkee xam ne dañ daan am ay xamb. di am ay tuur. Mhm. yooyu rabi cosaan la léegi comme euh, nouvelle technologie bi. Mhm. boo demee ba jàng ba nekk au gradé. sol costume mhm. da jàpp na benn tubaab laa yee waratuma koo def dem di tuur soo di sangu ci affaire njaq yi sungu fi di ma laal. di fàtte daal oh, loolu. Mhm. waruma koo def. Mhm. te ñoom loolu ñooy tax ñoom ñi mën a dund comme yow ni ngay soxla énergie pour mën a dund ni ngay soxlaa lekk pour mën a lekk. ñoom yow sangu ba nga fay def ak la leen ñu tuural. mooy seen dund ñoom. léegi nag fekkee bu ñu demee ci wàllu caddu gi bu ñu demee ba loolu yow defatoo ko. ñoom dañuy venger wu ci yow. di la sonal di la yàqal di la fitnal benn ñu teg sa jabar feebar boo xam ne foo dem ci hôpital duñ gis benn feebar gis waaw boobaa yow dootoo talat sa bopp mhm. da nga tal sa jabar wala ñu teg la ko wala ñu teg ko sa njaboot mhm. kooku mën nañ ko yéegal ci rabi ceddu mhm. fekkee ci beneen koo xam ne la du amut ay maami ceddu amut ay xàmbu amut yeneen rab mën naa ko topp ci mbedd wala ci colikam te da gis tamit euh, yeneen i tamit nit ñaa ngi koy def mu doon lu dangereux euh, mën nga ko kayital ba ci wàlli bët ak wàlli rab mooy comme jigéen ñu ñuy def seen téléphone yi di stati lu mat junne yi nit di la xool te yonent bi sallallahu alayhi wax ci benn xadis bu am solo mm-hmm. mu ne innal aynul xaq wal xaqu yuqaal mu ne mm-hmm. bët dëgg la te dëgg dafay wax te mu ne sama xeet bi bu ma leen doon ragalloo ñaar rek laa leen ñu ragalloo mm-hmm. mooy bët ak làmmiñ mhm. te mun a ñett bu génnee bu génnee àdduna ci sama xeet mun a ñaar yëpp bët ak làmmiñ moo leen yóbbu ci biir bàmmeel te mun a keneen ki buñ ko xee seetee ci dee gi tamit soixante quinze pour cent yëpp bët ak làmmiñ bokk na ci te mun a dañoo jël jëlam ba dugal ko ci biir kawdir kawdir nag bu ko waxee mooy cin mhm. yonente mun a cat ak làmmiñ dana jël gëlëm ba dugal ko ci biir kawdir mhm. léegi nag nga ñëw def loolu junne nit tiim la dina seetaan nga caa jëlee feebar wala nga jëlee ci gàllankoor wala nga jëlee ci. te ñoom léegi te ñoom léegi bu ñuy def seen statut yooyu dañuy patal seen i ween ba ñëpp mën koo gis te est ce que dama bëgg ñu taxaw foofu ndax cëru jigen yaakaar naa ne bokk na ci partie bi gën a sensible pour rab dugg ko te ñoom dañoo dañoo yolomal léegi loolu trop. waaw parce que rab jigéen la gën yomb dugg ci góor. Mhm. parce que jigéen dafa am yu bëri yu mu ànd euh, suñu yaay ñooy suñu lépp waaye saytaane dafa gaaw di laxasu ci ñoom. Mhm. parce que da nga koy xool ci yontu yàlla aadama sax seytaane ba muy ñëw ci xawaa la jaaree xawaa ñëw convaincre aadama convaincre aadama ba aadama lekk ci garab gi mhm. ba mu ko defee yàlla génne leen aljana ba leen yàlla génnee aljana ñu ci gàtt ñi résumé ko rek ñuy wër wër ba aadama ba mu gisee awaa na ko man de boobu ba léegi maa ngi lay wër xam nga lu ko awaa wax na man de fi nga ma bàyyi woon ba jugu jugewu ma fi dëgg la léegi nag rab dafay yomb dugg jigéen parce que seen cër daf koo bëgg mhm. te ñaareel képp koo xam ne dafay dox digg njolloor wala ginnaaw timis c'est facilement rab wala ngelaw seytaan dugg parce que ci waxtu woow mooy seen waxtu ñoom pour jonjuwaan technique mhm. képp koo xam ne digg njolloor une heure jëm ba trois heures koo bëri loo koy dox wala ginnaaw timis mhm. diggante bu ñu noddee timis yooyu pour rab dugg la dafay yomb lool mhm. ñaareel bi tamit yenn sol ko yi moom boo koy def jàppal na moom foo manti nekk rab wala ngelaw seytaan la nga dugg wala ah. doo dugg ci gàllankoor yi cat ak laaj ngir njëkkanteeg waxtu wi léegi li nga fi tënk yëpp yow da nga war ay xamb wala nga war ay njaq yoo xam bu nit ki ñëwee ànd ak loolu nga seet ko ba xam ni kii dafa ànd da nga koy sang foofu mu bàyyi ko obligatoire wala da koy ay traitement la am na ci yoo xam ne boo ñëwee ñu xool ko bu ñu gisee ne ci ceddu gi lañ war a dem ak yow ci wàllu xamb yi mhm. facilement mhm. ci loolu la ñuy dem ak yow pour dindi ko ci ceddu gi mhm. loolu ay traitement lay laaj wala day dañ dakk day dakk léegi léegi waa xam nga lépp loo gis euh, dafa laaj étape étape xam nga nit du ñëw rek nga ne ko dama koy dindi facile loolu xam-xam nanguwul loolu dëgg la parce que xam-xam bu ngay jàng ndax mi doon science da nga koy jàng étape ak étape. ba àgg ci garaade bi. Mm-hmm. léegi nag nit du ñëw rek nga ne li da koy dindi facile loolu xel nangu ko boo ko waxee nit tamit mu doon ko am xel tamit dana xam ne kii li muy wax dafay wax pour nax ma ko. Mm-hmm. waaye ah, en même toog ci télé yi moom naan boo dikkee ma saafara ko léegi léegi léegi léegi. waaw sëriñ si nga wax. Mm-hmm. parce que man toujours danaay wax ne. ku jàpp ne yaa gën a yeewu nit ñi. jàppal na tamit da ngay nax sa bopp yàgg gën dof nit ñi. waaw li tubaab di wax rek ku jàpp na yaa gën a yeewu ñëpp yàgg na dof ñëpp. Mm-hmm. parce que boo ne dama koy dindi léegi léegi mu ñëw dindi woo ko léegi léegi noxoo noxoo noxoo noxoo noxoo woon nit ki sa bopp nga nax. dëgg la parce que nit ki def na effet def coono. Mm-hmm. ba ñëw yëkkati alalam jox ko. Mm-hmm. kon nag kooku bu ko profité. te arab yi dañuy wax lépp bu am solo laa taajal. innamal ajalu min amali seytaan. nit du gaawantu. parce que gaawantu dafa bokk ci jëfi saytaane mhm. su yonent bi sax alquran ba mu koy jàng yàlla daf ko daan wax na ko bu ko gaawantu waaye bu ko yéexantu mhm. waaye nak nit nag du ñëw rek nga ne li da koy dindi facile man du ma liggéey noonu aco xel nangu na loolu ndax sëñ Mouhamed Diop moom dinañ ko kalaamee kenn mën da koy gane ji duma koom déet ndax moom loolu aay na ci comprendre ma xam nga sëriñ si yenn saa da ngay ñëw am na ñoo xam dañuy ñëw kalaame nit ak nit mu ni ma gane ji ko duma ko maanaam ngir yàqal ko wala nga dem euh, teg koo safan boo xam daal day xaw doy ndax boobu di nga dox ci lool waaw xam nga suyuuti daf daan wax ne imaam suyuuti mhm. mu ne booy tooñ na nga tooñ nitu yàlla te bañ a dof mu ne dof boo ko tooñee def fekk rayu la ba suul la du baax du baax nitu yàlla lépp lu muy def dana ci ragal yàlla mhm. comme par exemple nit ñàkkee ma kerse mhm. mën naa duma ci duma day gi mu ma ci ko comprendre ci ban domaine nga koy duma ci ci musallas Xazaali Xazaali suñ ci doon tënk ci mu musallasu Xazaali lu mën a def comme yow boroom daraja am mhm. alal ñëw mhm. tooñ la tooñ lu metti mhm. bu la neexee alalam jóoj ci yooni musallasul Xazaali am na noo koy liggéey ci géej ci ndox ci juróom-ñaari fan walaay weer jot dana nërmeelu comme euh, dana nërmeelu comme gattax gu tàkk ci alalam yépp dana ko ñàkkaat ci mu musallasu Xazaali bu la nit tooñee nga bëgg koo rekki comme nit am daraja am alal ñëw tooñ la mhm. am na noo koy liggéey ci ndox ci juróom-ñaari fan mhm. balaa weer yàlla lépp lu mu amoon dana ko ñàkk ah waaw ndax boo noppee ca moom ba jubóo waa ndax di nga ko ko mën mu jub daf laa tooñ parce que tooñ yàlla nag moo ne leen tooñee bu ngeen mënee fayeku comme kem lañ leen ñu tooñ mhm. man ngeen a fayeku bu ngeen jéggalee tamit fa lay xam léegi boo boo fayi ko tombeek mu ñëw ñëwaat jéggalu nag nooy defa moom yàqal nga ko pare ba moom du baale martaba laa laa laatu saabi mooy martaba moom du baale martaba moom bu xasee ba ya, dóor xam nga wëli yàlla mën nga ko tooñ mu baal martaba du la nga dafa am moom moom lu moomal boppam am loo xam ne baatinam moo ko moom kon wëli wi mën nga koo tooñ léegi mun na la baal naa la waaye xudaamam yeeg rawxaane ma martabam yi ñoom duñ la baal aco ci wàllu bala ñoo jeexal émission bi dañun bu njëkkaan dañ daan gis ñun suñu jur dañ daan dem ba ca kër ga ca ba wutal leen fa léegi ken amutul jam, kër gi lu mu yaatu yaatu da ngay dem ba 5e étage defar fa defar fa gétt ngir ñu yewu sax jur ah sàmmkat amatul kat amatul ndax lepp lo rek ah, ab samba boy jaar fa ne ko furaas jël te léegi bu njëkkoon amon na mag ñu lo xamanteni si dañ ko daan sul ci bir gétt ga kenn du fa mëna jël dara ndax loolu fay juk wala wala fay manki jugu fi nit ñu ñoo xaatootul rek. Mhm. parce que nit fay xatu mhm. xatu moy da ngay kaar sa bop ar sa ar ar li nga mom mhm. amna yo xamne boko takkon sa buntu kër. nit kuy def lu jubadi. Mhm. du fa teg tànk mukk du fa jaar. du fa jaar sax. Mhm. na nekk ci buntu kër rek. Mhm. nit kuy jubadi wala nit kiy jël wala nit kiy foog. du fa dugg mukk dont dont fo sax du intention ci kër gi. waaye fekk loolu mu ci kër gi. du fa dugg mukk gétt goo ko mën di def tamit bu la neexee gétt gi doon ci mbedd mi tamit waaye nit kiy foog du fa dugg mukk te loolu mi ngi ci yow. nit dañ dan bu ñëk ba mag ñi dañ dan wañ dañ dan wañ dañ dan wañ say say hmm moy say say bu démé ba jup ab dëkk. hmm difa doon nar a defi lu bon. Mhm. mag ñi dañ leen ar seen dëkk ba nga xamne bu ñëw day teggi dëkk bu ak bu wuté dal lañ koy tegal. waaw. hmm bu ñëk mag ñi dañ dan at dañ dan at hmm at seen moomeel. Mhm. nga gis mag ñi ci àll bi. dëgg la ay gétt gétt lañ am. teg ko mhm. ci àll bi duñ fa tek teg sàmm. lépp tëdd hmm ndax loolu mi ngi ci yow. mu ngi ci ñu. hmm Euh, ci kàddu mu mujj gi moom damay gis tamit mag ñi bu njëkkaan danaan am doom bu jigéen ñàkk ko ba koroog muy mat a am jëkkër kenn du mën a jot ca moom waaye léegi xale yi moom boo raayee rek ñu jaaxaan da ngay mën si waaw loolu ba léegi ba léegi mu am ba hmm. léegi mu ngi am am na ci yoo xam ne buñ ko defee hmm. moom même fekkee sax dem na ba jël ndaw si ba futteeku nar a àgg ci ndaw si du mën ci ndaw si dara hmm. dootul mën a jugal am na yoo xam ci boo ko defee moom ba ilaa yow mi ndaw si dana dem ba am jëkkër te vergine tam dañu mhm. am na ci boobu am na ci boo xam ne tamit ku ko mën di tiim du mhm. ndax loolu day dem ba mat ñu war koo tojtal wala loolu ku ku ku mu lew rek moo koy mën a jëfandikoo waaw am nga boo ko defaree mhm. am na ci boo xam ne boo ko defee mu demee ba nga gis ne war ngaa am jëkkër war na nekk ci diggante ñu ngi koy mayee jàpp nga bis boo ñëwee am na loo xam ne saabara boo xam ne dañ koy jox rek bu ko sangoo day dañ waaw dañ koy naan. boo fi ne boo fi newatul mbaa doy waar. Ah? boo fi newatul nag. niveau technologie bi foo man di nekk ci àdduna bi loo bëgg a jot. feeg 24 heures nga jot ko. GP yaa ngi lépp ci àdduna bi. waaw xam nga tamit àdduna nit ki moom moomul boppam bakkan yàllaa ko moom. Hmm, mën ngaa defal nit mu dem ba mat am jëkkër tombé tombé leen ay jamono su boobaa ndax moom rek du fa jaara teggee fa. dana am loo fi bàyyi. Hmm. parce que kii dee da nga utal sa bopp testament du ñàkk ci doomu aadama. dëgg la. te ku leer na yaa ngi fi jógee. Mhm. da xool koo gën a fonk sa njaboot gi. Mhm. nga bàyyee ko nga koy bàyyee. Mhm. waaye terewul nag da ko ñax na ko demal uti parce que man lii damaa uti woon ba am. damal uti say fi bopp. nga booleeg lu ma fi bàyyi. mu doon lu lay jëriñ. te cadre boobu tamit da koy dugal ci wàll noob tamit. noob dañ koy liggéey. noob maanaam sa jëkkër nga gis góor. waaw investi ci jigéen xaalis bu du jeex. waaw xëy xëy benn waaye jógee fa la ñëw takk ni ko tëf koy jël yóbbu. loolu mën naa dofloo nit. billaay. ñaan ci ñaari nit bañ juboo ba takkante mhm. bàkkaar nekku ci da gis ko am ay njaboot mhm. nekk ak sa yaay jëkkër ci kër gi du la mën a supporte wala nekk ak ay njëkke njëkke yi moom ñoo gën a sonal eh, eh, seen jabaru feneen jigéen ñi sonn nañ lool ci wàllu woowu am ci yoo res nga koy bind bu ñu ko waa kër gi yëpp lekkee nu res nooyee ñoom ñëpp danañ ko nooyee ba xamam coow du jug ci kër parce que mag ñi bu njëkk suñu waajur yi da nga daan gis ne da leen denc ñeenti jabar ci kër. boole leen lépp ñu doon boole leen ñun mm-hmm. ñepp ñu juddondo doon ay doomu bàyyi. danañ mm-hmm. judd ba mag ba ku nekk dem beru sa kër bop mm-hmm. do mo sa dégg suñu kër bàyyi ciow dëgg la mo suñu bàyyi dañ daan ñak seen kër yi. légui nak da ngay takk jabar dem nekk sa appartement yak sa jabar légui nak bu ñëwé xey mën na tok wër yalla du ñëw ñu sa légui nak loolu mën na am luñu def mën na luñu def ci nit nit dafa gaaw zalus mën na am loo xam ne ko def nit ay liggéey euh, am na ci xet yu yëpp dañ ko dugal ci wàlli boole rek mm-hmm. di fexe ba nga xam ne dañ lañu boole ku bëgg jigéen mu ba të ci yow mën na la ko noobal ba nga xam ne li nga bëgg ci moom da nga ko am waaye nag buñ koy def boo jugee caaxaan tamit ñu danañ ko xam dana waaw boo ñëwoon na ma noobal ma nit fekkee caaxaan la man dinaa ko xam waaw ah, loolu tam solo damay rey rek bala mm-hmm. loolu jugal aca mi ngi noonu mu nekkoon seen émission pajum cosaan xay na duñ ko bàyyi nag waxtaan ak moom ba muy dem te duñ dugg moom ci li nga xam moo lëmbe àdduna muy ndoxum siti ndax loolu tamit di ci yëngu. waaw ñetti feebar yi de moom lëmbee na àdduna loolu mm-hmm. mooy siti mm-hmm. siti ak hémorroïde ñaari mm-hmm. jàngoro yoo xam ne ñoo bokku ndey waaye bokkul bàyyi xam nga siti mën na tee jigéen ba du am doom siti mën na tee góor ba du mën na tee góor ba du nekkati góor hémorroïde kazalik hémorroïde mën na tee góor ba du nekkati góor te hémorroïde sax moom dafay delloo awra comme mhm. nu koy rab bi defee mhm. néew kattan nag mu fu mu nekk ni moom bu njëkk doo ko daan dégg waaye léegi vingt cinq ans vingt sept ans trente ans ndax am si trente ans barki dem rek laa ci am benn waaye bu ñëw waaw ñoo man ma sëñ bi man dañ maa bëgg may jabar te manuma denc. wallaahi wallaahi ma ne ko li tax manuma damay gaaw damay gaaw a yëg sama bopp su ma jàkkaarloog nit sax balaa kii ma yëg sama bopp kooku ko boo dencee damay toroxal sama bopp. billaay. ñaata at nga mënuma vingt neuf ans ma jaaxal. ndox mu siti. yooyu yëpp néew kattan ndox siti hémorroïde. hémorroïde ndoxu siti mhm. moom 49 jours laa koy faj. bu dikkoon ceeb mën koo. ba taar kala ndoxu siti hémorroïde 49 jours laa koy faj. nga xamante si nii moom loolu da ko dal ki ngay wax ni ndax ñu mel ñu ni mel man nga jëflante ñoom ba. tubarkaal. 49 jours ñoom ñett yooyu 49 jours laa koy faj siti hémorroïde néew kàttan boo ko judda boo ko judduwaalee nag moom mënuma koo faj. waaw boo ko judduwaalee mënuma koo faj. Mhm. ku mënta xolloo silmaxa mënoo jugloo ab lafa ab astafurlah yàlla ma yàlla baal ci baat bi mënoo jubloo handicapé boo xam ne yàllaa ko bindee noonu. Mm-hmm. ak silmaxa boo xam ne yàllaa ko bindee noonu. Mm-hmm. ku mënta xooloo ñun. Mm-hmm. moo ne mën ngaa faj koo xam ne dafa judduwaale néew kàttan tamit. sa bànneexu bakkan bi nga ko teg waaye du ci xam-xam. moom daal kum dab rek ngeen mën a faj. kum dab. corona moom soo nekku ci. corona rek dama lay liimal juróomi addis bii xam ne yonent bi daf koo waxoon mi addis bu am solo bis dafa génn ne. yéen muhajirin maa ngi leen ragalloo juróom maa ngi ñaan yàlla yàlla bu mu leen jot waaye yéen yàlla bu leen ko jot mm-hmm. mu ne mooy yàlla bu baree ci kaw suuf ba nit ñi nëbbatuñ ko mu ne yàlla dafay indi balaa wàcce ay feebar yoo xam ne duñ xam luñ koy fajee daa dëgg mooy corona bi mm-hmm. mu ne jaaykat yi mm-hmm. sen baskili yi bu koy nës nësal di di ci bal ay tappale waaw mu ne yalla musiba rek lañuy tek hmm ñettel hmm mu ne suñ té asaka gi bañ ko jox bañ ko joxe mhm. ci ñu ko yeyo mu ne yalla dana té tawam mhm. ta mu ne boba yalla dana wàccee ndox sax waye lu ci wàccee yonam ci nit ñi waye pour jurgi dundu moy tax mu wacce mu wacce ndox mi deug la ñentel bi mo ne suñu digënté ak mom yonent bi gëm buñ wax ne gëm nañ ko mhm. buñ démé ba won ci ak di ak mhm. fay la mhm. ci gëm buñ ko gëm mo ne yàlla danañu xir ay non ñi ñëw foqarti lu nekk suñu alal yi ta duñ ci man dara mu ne gëm buñ wax na mom gëm nañ ko yonent mom yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba won ci ak mankama ak di mu ne yàlla danañu won dañu xiir ay noon yoo xam ne mooy nangu lu nekk ci ñun te duñ ci man dara da koy delloo lu xew ci réew mi yépp ci lépp loo xam ne ressource minière la ak lépp lu mënti doon ay noon ay noon rek ñoo ci teg ci ndox ci fer bi ci lépp ci littoral bi ci lépp lu mënti doon rek ñoo teg ay noon mi ngi noonu mu ne juróomeel bi mhm. mu ne buñ yàlla mayee ay njiit ci diine mhm. ak ay mhm. imaam mu ne au ñu wax ci téere bi lu téere bi wax. Mm. waaye mu ne dañ ciy seppi la leen neex ak la neex nit ñi ñu koy wax. di waxee seen bakkan. waxee seen bakkan. Mm. mun ne boobaa yàlla dafay def ñun julli ci ñu neen suñ biir ñooy jotee rek te loolu boo xoolee daanaka boo ko résumé mooy àdduna rek. dëgg la. julli ñi fu nekk ñoom leen ñoo jotee diw a gën jiw sa diw a gën sama diw sama géew la ma gën te jëmale fet mm-hmm. li nga xam ne moo ñu takkee ñuy lislaam te lépp lu man di am ci àdduna lislaam moo ñu ko may ba ñu koy bànneexoo mm-hmm. kon nag lislaam boobu bu ñu ko doyalalee. alhamdulilah di fobiser nit ak nit. Hmm. uutee rek ci lañu ci lañu nekk. Hmm. macha allah Serigne Mouhamed Diop te damaa gis ci yow fasaaxa goo xam ne ak leeral goo xam ne wax dëgg yàlla euh, dafa dal xel waaye tey jii bëri na suñu mbokk téléspectateurs yoo xam ne ñu ngi seetaan te dañuy bëgg jaxasoo ak yow surtout wàllu jigéen ñi xam naa li fi gën a développé jigéen ñi la gën a intéressé ak góor ñëpp sax laay wax waaye tey ku bëggoon a solo daal la bëgg a gis Serigne Mouhamed Diop ana nan lay def. waaw ku ñu bëgg gis de jigéen ñi moom ñooy suñu ndey ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp ku ci bëgg jëkkat tamit boo ñëwee am na lu ci liggéey ci fuddan waaw ku ñu bëgg gis ñu ngi Dakar si Kafoar <coughs> ñu ngi Dakar si Kafoar mm-hmm. ci boori dibiteer yi Korom ak Fay mm-hmm. euh, foofu mooy suñu adresse mm-hmm. fa lañ mës a dëkk numéro bi ku ñu bëgg a jot tamit mën nga ñaa jot ci 77 437 99 99 77 437 99 99. acco bu fekkee am na kàddu goo xam ne tàggatoo tembe woon na te ñu ngi ci ak yow wala nga am loo bëgg a tàggatoo bu mbokki internet yi lan lay doon. waaw tàggatoo bi de mooy ci wàllu kayit tamit ku bëgg a tukki yooyu yëpp ak ku nekk bitim réew soxla kayit dañ ci dañ ciy yëngatu. Mm-hmm. bu ñu ko defee daal da nga am papier réew moom. Mm-hmm. ñu ngi tàggatoo. Mm-hmm. di ñaan yàlla. lépp luñ fi waxtaanee rek. yàlla nekk njëriñ. amiin yàlla ñu jàpp ci suñu loxo. wala ñi ca yoon wam bëgg mm-hmm. ak yoon wam gërëm mm-hmm. yàlla mu ñu may ñu judd ci lislaam ba toll ci nii mm-hmm. yàlla nañu ci yàlla faat te bu ñu ciy faat yàlla nañ ci doon jullit te yàlla na yéex te yàlla na yàlla def jàmm suñu réew def fi salaam mbas mi xam ne nekk fi yoon bi sallallahu dana daan wax ne balaa du mos a am mukk lu dul bàkkaaru ko waral dara du ko dindi nag lu dul tuub bis Medina bis Medina ñàkk na taw Mm-hmm. Seydina Omar yéeg ci minbar mm-hmm. na yow yàlla mm-hmm. balaa ba mos am bàkkaar a koy waral dara du ko dindi lu tuub ci barkeb yonent bi lañ daan ñaanee gisuñu yonent bi ñu ngi tawsul ci barkeb Abbas mii xam ne mooy bàyyi yonent bi Abbas doyloo wut na mooy bàyyi yonent bi waaye def na yow yàlla balaa bu mos am bàkkaar ko waral dara du ko dugg dindi lu tuub ñu ngi yées suñu dox di sujjóot di ñaan nga teggi ko kon nag nañ tuub rek te jéggalu mm-hmm. yàlla bu ñu ko defee rek mm-hmm. yàlla rus na ay jaamam te am na allahuma yoo xam ne yàlla du ko delloo mu wa ma zalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokk internet yi mi ngi noonu mu nekkoon nag seqoon nag waxtaan suñu fajkatum cosaan bii nga xam ne da koo jële ci ay maamam ndax dégg ngeen ci biir kàddoom mu wax ni dafa am loo xam ci wàllu alxuraan lay jóge am loo xam ci wàllu euh, pajum cosaan gi lay jóge mbokkee yi dañuy jël lu bërki démb ak lu démb taftal ci lu tey ngir ñu mën a jariñu réew mi ne dafa am a réalité am loo xam ni ñoo ko moom duñ ko jéggaani fenn xam ngeen ne reen ak sunguf ah loolu suñu yëfi maam la nañ ci delluwaat bu baaxa baax waaye wàllu rasra lasraar ñun jullit yi ñoo ko moom te yàlla dañ ne na ngeen ma ñaan ma may leen kon bu kenn wax ni kii du waaja bu kenn wax ni tamit ah ku dem ca waaja fekk fa gaañi loolu dëgg la waaye sëñ Mouhamed Diop mi daal ay kàddoom man doy na ma te bëgg naa ah ngeen bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam waxtaan nañ ko ñun mbokk yi mi ngi noonu xam nga réew mi nag réewum teraanga la réewum jàmm la réewum salaam la képp ko ànd ak jàngoro joo xamante si nii rek eh, jaaxal na nga contacté seigne mohammed Diop gis ngeen numéro baa ngi non ci ba écran bi bu ko defé bu len yalla bolé rek mën na def tawféex lool ah, ci mbokk yi nga xam ñu ci diaspora bi tamit du len faté ay ño xam am nañ fa ay jafé jafé nek ci kasso ya ah am xam xamante ni am nañ walu keet ngir del ci wat xol seen seen askan ñooñu tam ñoo ñep ñu yoyo ñaan lan kon seigne mohammed ñu ngi lay ñaan nga bàyyi xel julit yoy bu baaxa baax ngir ñu del ci wat seen réew ndax am na ñoo xam ne ñoo tàggatee ba ci àll bi te lépp leen fa téye wàllu wàllu jafe-jafe la rek te ñaan lu mu mënta faj amul kon ñu bàyyi leen xel bu baax a baax mbokki mi ngi noonu seen émission pajum cosaan xam naa dañ leen di jox dig daje fii ay bés di nuyu bu baax nag suñu caméraman yi ñu àndaloon tey xam naa Ndey Kumba moo ma seere man Seck Ndanaan hmm, madame madame Ndiaye ñëw ci maquillage bi Bobet yoroon sama technique ma Abdoulaye Diouf yoroon li nga xamante si ni mooy waaru régie bi mbokk yi di jox dig daje incha allah rabbi ëllëg ci yeneen ndaje jërë ngeen